waa xam nga loolu rek mooy wane ne Cour des comptes euh, seen wareef dañ koo deful parce que semaine passée mënuñoo génne ñeent fukki rapport 40 rapport tey yaa moins de 10 minutes nga génnewaat yeneen 30 rapport donc day wane ne ñoom defoon nañ seen liggéey ñeenti at. Mhm. waaye président moo bañoon rapport yi génn. parce que président li taxoon Macky Sall li taxoon mu bañoon rapport yi génn xam na ne ñi ko wër ay sàcc lañ ay njuuj njaaj lañ doon def dañ doon luubal alal mi. te xamoon na ne rapport yooyu bu génnee sénégalais dañuy pare ci ñoom dañuy pare ci nguuram parce que boo xoolee rapport bi mhm. amul kenn ku ci def lu lu jub mhm. jaay nañ terrain euh, surfacturation passation de marché yu bon euh, jël ay indemnités yoo xam ne indi yu ñu koy jox seen bopp mhm. di jël seen i seen i soxna seen i doom seen i jarbaat di leen def recrutement yi nga xam ne dëppoowul ak législation bi di nekk ay président conseil d'orientation wala président conseil d'administration ci ay Euh, agence ak ay direction yoo xam ne législation bi nangu ko mhm. donc loolu yëpp ay euh, joyante la yoo xam ne président Diomaye da ko war a def moo taxit rapport yi Macky Sall moom moo waxoon ne am na rapport yoo xam ne daf cee teg concom mhm. moom bu xamee ne rapport yi bu génnee du baax ci moom moo taxit mu bañoon rapport yi génn waaye sénégalais yi juumuñu ndax ba ñu jëlee président Diomaye ak ànd ak le premier ministre Ousmane Sonko fal ko xam nañ ne maanaam transparence dans la gestion parce que président Diomaye aussitôt mu falu mhm. dafa jox directive cour de contrôle yëpp nañu publier tous les rapports